وزدوا في كل فن بدوا وراء مات وكل سبر كل ساعة جاد ناس وجوه بالغداء ريدا تركوا تفات إلى Serigne Abol Baraka moom Cheikh Amadou Fall fii ci suñu daara ji mu ñëw nag àndut ak moom dong mi ngi ànd ak rakam di Serigne Ibrahima Khalil moom moo toog noonu ci càmmoñam waaye ànd tamit ak Serigne Mbacke moom Serigne Fall toog nii moom it di rakam waaye ànd it ak sëriñ Abdou ah, Serigne euh, Murtada Mbacke moom Serigne Abdou Fatah moom Cheikh Amadou Fadel moom it toog jotaay bi. waaye ànd ak sëriñ Cheikh Mata Lay moom sëñ Abdou Aziz ak sëriñ Dame Jenn ak sëriñ du Jenn ak mboolem ñi nga xam ne xam naa ko ma fàtte kenn rek ak sëriñ Modou sekk mi ñee toog ñooy suñuy yaay di suñuy njaboot di ñuy goro ñoom it ñu jege daara Jolof ñii gën a ñëw nga andi seen i teraanga xéwale yëpp ñoo ko fi defar andi ko ànd ak ñun bis bi waaye sëriñ beeg ànd ak soxna jaara moom sëñ Barama Xalil soxna jaara di doomi si Abdoulaye waaye fekk si fi soxna Oumy Mbacké moom sëriñ Abdou Khadr moom mu ñëw fi ànd ak mbooloom mi ñun nag suñuy kàddu du man a sori ñun nag suñu xool sedd na lool ndax bàkk bi nga toog sëñ Ibrahima Khalil mii moo fi njëkk a toog booba kër gi melagul woon nii booba ci suuf rek laa defaroon ba mu ñëwee mu toog fii def fi dimis ba gee daa defee ñaan loolu rek doy na sëkk waaye nag boo fi ñëwaatee tey Mbacké di sëriñ fàllu loolu day gën a seral suñu xol wax dëgg yàlla amuñu kàddu gu ñuy wax gu gën a gu gën a gu gën a gu gën a gu gën a gën a suñu xol sedd na suñ ko amoon moom la ñuy wax waaye suñu xool sedd na lool ndax lii mbàkki jafe na lool ñu bari bëgg nañ ko mënuñu ko am kon nag bu ñu demee bay liggéey Sëñ Tuubaa nga fekk ci réew ma ba tàggoo ci aéroport ba nga ne wa jàpp naa la te Sëñ Fallu rek tax lii da koy firndeel jàpp gi mooy ñëw gi ba ma ñëwee déggantewuñu téléphone suñu xal li mu yemoo wane ma suñ baa ngi lay laaj nag ah man de maa ngi jéggalu fekk ma nekkoon ci ite dañ mbokk yi làqu woon ginnaaw bi la ma sëñ Xalil woon ne ma sëñ bi kat nee na jàppoon na talaata Mbàkke muy muy mbégte mu yaatu ci ñun ñëw ge defaloo ñu ko ñun donc wax naa ko waa Brésil nee naa leen waa Brésil gépp la ñëwal kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm ñaan Mbàkke nga yàgg fi lool te wér barke Sëñ Tuubaa borom defal la fan wu gudd ak wér sàmm la sàmm sarak yi nga àndal ak sa njaboot gi nga àndal wax dëgg yàlla ñun ci waa kër sëñ Modou xabban lañ jokk waaye nag kenn du wax sëñ xabban tuddoo sëñ Fallou ndax ñoom ñaar leen la ñoon du ñaar moo tax dugg yàlla ñu ngi feddali couleur gi di sant di gërëm xam naa la jëlee sañuy bàyyi suñu bàyyi njaay mi moom bu kàddu gi bu ci dara manqué dana ko mottali di sant yàlla nag tey bésu sant la yàlla xam na ne ne jéem naa ut nu ma waxal ndax mëntuma wax yam xam naa loolu ñoom xam nañ ko sax ut naa ñu ma dimbali pour ñu jël kàddu gi ndax xam naa ne nag moom ëpp na ma tey tey moom toll naa foo xam ne fii yàlla rek moo xam ak Sëñ Fallu Mbàkke Awa te moo toog nii waaye nag wax ji mu dul ñàkk kon dafay mel ni ne damay dellu gannaaw tuuti rek ngeen jéggal ma ñu xool ma xam ndax bésu tey bi ak ba amoon bu njëkk boobee naka la mel yàlla dafa dogal ci kàttanam ak yërmandeem ma dem Brésil war a yokku mu neex yàlla ci baaxam a yërmandeem ma dugg ci hôtel ba ma nekk am kuma ma fa fekk sopp te boobu maa ngi sonn la ma yoroon jeex na xaw ma fa kenn dégguma làkk bi ma toog ci otel boobu jaaxle lool ñëw ma leen wax ne amatuma muntuma fay ñematuma ko wax am jëmm juma ma fa fekk xamuma déggul làkk bi fayal ma ba pare toog tuuti as diir ay fan mu yóbbu ma këram kër goo xam ne gi nii la toll moo ëpp bi fuuf mu am lépp ci biir te fayu ñu def fa fukki fan ak ñaar ña foo fekkoon bari wuñu ku mel ni Samba Diak la ak kan Modou Mbaye Seck ak ña fa nekk mu neex yàlla ci kattanam ak yërmandeem guddi googee mu neex ci ci ay nelaw ñu gis lu rëy lu ñu jomb lool loo xam ne taluñ antanuñ ko mënuñu ko xamuñ ko sañuñu ko te bokkuñ ci waaye mu neex yàlla ci ba xam ne Sëñ Fall Mbacké Abou Bousso feeñu ma ca Brésil nekkoon fa la toog ma ma toogee nii ma toogee nii guddi googee bi ñu xëyee ci suba gi ma oo sama soxna ne man de ool ma Samba Diak ndax day biig ci guddi dama am gal Samba Diak di ñëw ak ña fa nekk matuñu fukki nit ma wax leen ne biig sëñ Fall Mbacke Abou Bousso ñëw na biig ci kër gi fii la ñu uti gàtt sant Serigne Fallou ci bés boobu ci guddi googu bi timis jotee ñëpp wàcc ñëpp ñibbi ma dugg sama néeg dallu dix heures ci guddi ñu fëgg sama néeg na ma am nga tan kan moo ñëw ci guddi googee mu ci ñebe xel Mbacke Falil doy na waar nii la demee de wallahi azim guddi googu ma géntal noonu la demee ca bés ba ca cant ga ca guddi ga ku baax kii di sunu sang daal di ñëw ñëw ñëw fa ci bés boobu kon tey te du ma mën a wax lépp ndax dafa gudd na dafa gudd lool histoire euh, euh, Brésil moo euh, bi waaye su ma jógee foofu rek xool bésu tey bii sëñ boo toog di sëñ Fall Mbacké Abou Bousso sëñ Ibrahima Xalil Mbacké Fall lu toog sëñ Sërif toog ku baax ki waaw man man Baye Ndiaye bu sëñ Fall lu ma war a def xanaa sant sëñ Fall Mbacke Cheikh Ndiaye yàlla na la yàlla suturaal li ma bëgg a wax yëpp su ma ko bëggee wax dafay dafay yaatu lool waaye yow xam nga ne ne lu mel nii sëñ Fallou da la koy jox sëñ Fallou bu awu bu so koy jox bi nga may fekk Brésil lépp sax ndax mën naa koo wax waaye da am loo ma waxoon yaa yaa ma ko wax maa ngi yaa ngi nii maa ngi nii danga ma ne incha allahu de lii laa yore ngay fay ko ñaar fukki dërëm fukk yi juróomi naa ko jox Sëriñ Tuubaa Xaadimal Mustafaa juróomi si des naa ko jox Maam Seere Ma Fall juróomi naa ko jox ci daayira bi juróomi moom lay dundee yaa ko wax te fen lu ma fekk la kasu rajab daal di am li ma fa njëkk a def mooy kasu rajab kasu rajab ñu defar yëpp mu am lu manqué ma woo la sama néeg te doo ko fàtte defe naa ma ne la abal ma deux cent réal moom mottali yëf yi nga jox ma ko mbay fay nga ne ma bàyyi ko man li nga xam ne sëñ Fallou amul morom du man nga waxanteel li nga xam ne sëñ Fallou amul morom suñu suñu sang bi toog di sëñ Ibrahima Khalil Mbacké fële lu jàll fi yàgg moom daf ñu wax ne ñuy wax sëñ aboo yàlla na fi yàgg ci wér moo ñu ko sant mu ne bu wax ju mukk si Ibrahima Khalil Mbacke fa loolu dara deleen sant sëñ Fallou sëñ aboo moo ñu ko wax kon nag Mbacke ñu ngi ziar suñu doom ji nag ak ndawleem yëpp ña fa nekk ay jàmbaar lañu nee naa ko gënoo leen ëppale leen xam-xam ëppale leen juddu yàlla def lu ko neex bañ ma naan tànnal mbooloo la woon man leen mënutu ma ko yor mag mag amatuma morom seen biir man li ma foo fu ma dem yem naa fa kon léegi tànn leen seen biir ngeen na ma jëlal kolo ko ne moom la muy moom may du ma jël ndax ëllëg a tax bu ëllëgee ñu ne Baye Ndiaye bu sëñ Fallu moo tànn nit ñun ma nag duñu tànn mu neex yàlla ca baax ma yërmandeem tur bi ba mu ko tuddee moom mi toog ñëpp ne moom la bés boobee ba tey jii mi ngi ànd ak ay jàmbaar yi jàmbaar yi la àndal waa Brésil laa wax ñëpp ku mu daj ñëpp ay Cheikh Ndiaye lañu ni Cheikh Ndiaye mel rek la ñu mel naa doxe neneen su may génn ci mbedd mi damay def ni xëy na ma leen def Cheikh Ndiaye wala kenn man dama am sens dama sant Serigne Touba Xaadimu ma sox Serigne Fall ndax foofu day dëkk bu yéeme waaye dama boole ay xale yoo xam ni rus naa leen fukki at ak ñaar musuma ci seqee kenn dara musuma ci atte kenn dara lépp lu ñuy wax rek Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Fallou Mbacké Abou Bousso ba tey jii Cheikh Ndiaye su ma ko tuddee tudd naa ñëpp ndax nag mooy jëwriñ nag foo ci ci dëkk ba man mi tey jii yaay sama jëwriñ te jëwriñ dafa am solo wane nga ko ci fànn yëpp ci bëgg Serigne Touba ci liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Moustapha lépp lu ma xam ne wax naa ko jiitu nga ci ak ñi nga àndal ñëpp fi may tëjee rek. mooy bés bi nga xam ne am na ci suñu biir ku ko ci liggéey doole bariwul dem nañ bay xalaat ne fa lañ koy denc ku baax nga yow ku baax nga yow yaa wax ne ci sa làmmiñ nañu fexe ba mu dem ndax bu demulee ñu ñu ñëpp fi la ñu des korok lo korok guddi googee ñoom ñëpp jóg di génn di màjjal ma toog fa ma toog ne ba leen ko indiwul ma suumee ko nag suumee sama dàll ma jàll kor ngeen ma fekk jox ma di 17000 réer koor ba daal di dem koroog ba tey jii képp ku fa wàcc liggéey lépp lu war ca moom ba ci njaboot gi daayira baa ngi koy def wolof nag dafay wax ne peccum liir bu neexee day mën ko téye ci mbagge ya sëñ Ibrahima Xalil Mbàkke Fall jërëjëf Mbàkke kenn mënu ko wax te kenn ma ko wax indil ñu lépp ba indil ñu sëñ Fallu defal nga ñu lépp yaa ñu yërëm yaa ñu bëgg mm-hmm. yaa ñu teral yaa ñu jàngal luy taalibe mm-hmm. yaa ñu on lu bëggee sëñ Fallou yaa ma ko won mm-hmm. kon Mbàkke foofu laay gàttal wax di tuub ak di jégul di sant waa kër sëñ Fallou yëpp di gërëm ñëpp di ñaan Cheikh euh, Cheikh Ndiaye mii ak njaboot ga fa nekk ñëpp yàlla na leen yàlla doole ci bàkk sëñ Fallou Mbacké Abou Bousso wa salaatu wa salaam ala rasulillahi sallallahu nii ñu yaatoog moom boo defutoon lii duñ ko mën a am te lu ne mën a jeex juddoo yàlla na yàlla juwaleeg say bokk te juwaleel la taalibe yi nga àndal te mu yàgg lool ci barke Sëriñ Tuubaa ngeen góorgóor lu baax xam am ngeen xéewal bu mag góorgóorlu nag ci jaamu yàlla bu wér te bañ koo booleeg lenn te yaakaar Sëriñ Tuubaa jaamu yàlla gi moom day suñ warteef waaye yaakaar suñ Tuubaa gi mooy li nu li ñuy jëriñ nanu sëñ bi gënal suñu bopp bu nu gënalee suñu bopp rek lu nu yeetu dañ ko jàpp jërë ngeen jëf fi kulli fa